ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي seytaane ngi taxaw àdduna ngi taxaw bakkan ngi taxaw bànneex a ngi taxaw te bu ci nekk di noonu nit parce que amu ci solo ndax inna kayda cheytaani kaana daifa mais ñetti yi muy manipuler ak dunia wa nafsi wal hawa yow yaay am fayda gu day ni du la jëkk ci ñoom addunya moom it mënul dara bu dul an nafs alhawa mënul def dara bu dul an nafs te wa ma ubarri'u nafsi ndax inna nafsa la ammaaratum bissu moo tax dañu lay ñaan boo bëggee nafs mën a të iblis te àdduna te bànneex danga koy reyal sa bopp bala mu lay rey mais nafs rey ko benn yoon taxul mu sotti di ko rey benn yoon mu jógaat taxaw nga rey ko ñaari yoon mu jógaat taxaw nga rey ko ñetti yoon mu jógaat taxaw ba bu ñeenteel bi nag jeex na waaw waaw fa yef na summa yef na summa yef na wa kaana fanaauhu ayna albaqaa'i waaw troisième degré bi